alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayyidina wa mawlaana muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi wa sallama taslima mbokk yi seen yóbbalu bis bi ak seen mbokkum taalibe Cheikh Ndiaye Gana Serigne Mat Lamine Ndiaye radiyallahu taala anhu ginnaaw ba mu faatoo ba ñu denc ko njaareem ba noppi sëriñ tuuba qaadala wallaahu maxtaaralu joxe woon na lu mel ni luñu ñu war a def ci bàmmeelam waaye ba ñu ko xoolee fekkuñu fa dara sëriñ tuuba qaadala wallaahu maxtaaralu hoo xamle ne dañu ko yóbbu tuuba wér na bari na lool ay nettali yooyu saxal bu wér ne sëriñ tuuba qaadala wallaahu maxtaaralahu sunu borom subhaanahu wa da ko may fu ab muritam mën a faatoo ñu koy yóbbu tuuba am na ñuy saxal itam ne fii nu toll andi googu guddeeg alxames lay doon gu nekk wallaahu alam sëriñ tuuba qaada la wallaahumma mas naa war ci aw fas am ku mu àndal muy dox kookee tofli sëriñ tuuba qaada la wallaahumma xtaara lahoo ci fas wa dem ba ci ngeer mu tofli fa suul ko ñëwaat war ci aw fasam wér na loolu mooy njàngale mi gëna a gaaw naa ko booy tofli nangay ngay dem ba fee nga tofli fa suul ko wallahu a'lam sëriñ bi doon sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéeyal